si source bi déjà euh, nu ñuy acquérir xaalis bi dafa cher mais forcément il faut que lu ñu koy jaayee bu cher te bu ñu koy jaayee bu chéree day impacte sur le pouvoir d'achat de de de di consommateur boo jëlee location bi aussi c'est la même chose crédit immobilier tey ni ñu koy joxee 10 millions nga fay 21 millions mais kenn tey bu ko joxee crédit boo xam ne peut-être 30 millions mu war a fay 65 millions mu tabax ci benn këram di ko louer mais kenn mënu koo forcer mu wàññi location bi parce que trente mille trente millions yi mu jëloon soixante soixante soixante cinq million lay fay. te bu ko fayul dañuy nangu kër gi dem bazarder ko jaay ko moom mu perte par conséquent comme li mu ko jëlee dafa cher li mu koy loué tamit forcement day cher parce que day bëgg amortir euh, bien immobilier bi. donc il faut que ñu analyser problème bi en te loolu day répercuté ci consommateur day répercuté wu ci consommateur moo tax boo xoolee bu ñu nee dañuy wàññi location bi dañ koy wàññi pour 2 3 mois maximum 6 mois. après mu delluwaat ci fu mu nekkoon gën a cher. c'est parce que tout simplement le coût de l'argent est excessivement cher li ñu jëndee lu mu jël ci banque ba ba tabax kër gi bu doon da ngay fay da jël 30 millions ñu fay loolu ay 35 millions crédit immobilier ñu ne amul problème bu boobaa di nga gaaw a. amortir sa sa da nga mën a fay prêt bi amortir ak yooyu noonu mais li la koy joxee mooy double bi mais bu ñu la ko joxee double mais fondamentalement forcément boo demee yow it di louer mais da bëgg a amortir le bien immobilier ça c'est une logique financière léegi nag problème bi mooy discussion yi ñuy mënee parce que euh, li fi amoon rek moo fi amaat en réalité du sànni xeer du dara mais li fi amoon rek moo fi amaat euh, bu problème yi amee euh, opinion bi commencé ñaxtu li ñuy def mooy woo le patronat woo ñenn ñi euh, des anciennes têtes les mêmes personnes la ñuy woo pour jéem a trouver solution doo ci dégg mukk les associations de consommateurs woo a leen alors que ñoom la ñu war a njëkk dëggu leen vous qui êtes les consommateurs vous qui supportez les les coûts mais yéen lan ngeen xalaat ci problème bi ñoom dinañ indi seen solution dinañ indi seen i proposition buñ ko indee nag nga door a nag dem rencontrer les commerces segg ci li nga ci war a segg dem rencontrer les commerces mais bu ñu nee bërëb rek yow nga bëgg a dem rencontrer les commerces dañuy jël des mesures yoo xam ne parfois ça n'arrange pas le consommateur. mais est qui se passe actuellement.